li gën a fës ci boppu xibaar yi dañu koy dooree ak ndogal bu ministre bi ñu denk kaaraange bi réew mi jël te jumaa yi ngir mën a gàntal lawum jàngoro bi di coronavirus imaam ak ulema ñi nekk fi ci Yarax nag ñoom topp nañu boobu leen digal loterie nationale sénégalaise di LONASE ànd ak njiitam Amadou sambakan Kane ñoom desuñu ginnaaw ci xeex bi la covid 19 ndax jébbal nañu ci lu tollu fanweeri million ci ay matériel sanitaire kii di ministre de la santé bu ñu jógee foofu ànd ak Amy Guèye Cissé mi defal ab jàngat bu yaatu ci tolluwaayu réew mi depuis Covid 19 bi kani si wee Sénégal tëj ay frontière am aérien ak teres fan yi wees dara waralu ko lu du coronavirus bi lëmbe àdduna bi mu nekk lu ñu mën a jural ay jafe-jafe. ci wàllum économie ñu ànd ci ak Maguette Ndiaye di ab économiste te xam-xamam màcc ci wàllu wam

ñoom lañ njëkk a tere door a tere ndaje moo xam ni farata la waaye man sama gis-gis ci feebar bi nga xam ni moo dugg ci réew mi jàpp naa ne lépp loo xam ne mën na koo freiner walla war naa tax du law loola yoon la pour ñu tere ndax feebar la boo xam ni nu muy wàllaatee dafa gaaw te paj mi gaawul te réew yi mu not ëppi moyen ñun ëpp doole te taxut taxut ñu man ko freiner kon su dugg see ci sunum réew nun ñi nga xam ni ay sénégalais la nun ñëpp war na noo ànd xeex feebar bi te xeex bi ci gën a am solo dëgg dëgg ci sama gis-gis man mooy fexe ba mu bañ a law kon man ànd naa ci loolu ndax mu mën a bañ a law ndax law gi la mu mën a jur yàlla rek moo ko xam mais noonu bindee fi xamuñ ko. fi mu nekk ni nit ñi tit nañu occidentaux occidentaux yi ak ñi nga xamné Asie ak fep jaxlé nañu ndax feebar feebar bi mu nekk feebar bo xamné bu gaaw te da fay walé waaw li bi bi loolu amee itam faaw nit ñi nak jël seen précaution précaution su ko défé li ñi wax al wiqayatu khayrun min al ilaj fegu mo gëna faju ko defee ah xam nga jullit moom suñ ko waxee te jël sa ju sa jàkk jël sa ju juma dooto julli ci jàkk ci mbooloo ak jum ki julli juma wax dëgg yàlla xam nga ne euh, décision boo xam ne bu bu bu bu metti bu douloureux dégg waaye nag euh, loo gis nag noonu la nga koy jàppee man naq dina ma parce que bi ñu jël euh, décision bi démb mënuma ko mënuma ko jàllale mënuma ko jàllale xaw dama xamul fan laa jaaree ba wax ko waaye nag pexe amul pexe amul pexe amul waaw su ko defee rek loolu mooy sabab bi nga xam ne ñuy tëj jàkk ji ak jumaa yi te loolu wax wax nañ ne le 14 bi passé la tàmbale ba le 14 bii di ñëw mun na ma am am amélioration ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala moom mi nga xam ne moom mooy wàcce feebar moom dong moo ko mën a faj mu nekk ndogal lu métti bu ñu sukkandikoo ci la imaam waaye di xamle ni lu gën la ngir xeex li di covid 19 ba pare di ñaax askan wi ngir ñu gën a topp tegtalu autorité sanitaire yi. baa ngi soññee encore ci mboolem bindeef yi nga xam ni ñu ngi dégg sama kàddu ci li nga xam ni moom la ndigal yi nga xam ni boroom xam-xam yi nga xam ni ñoo jàng wàllu santé wàllu médecine ndigal yi nga xam ni moom lañ jox doomu aadama yi. te mooy ñuy raxas seen loxo ba mu set ak saabu te mooy ñu moytu saafante bi te mooy ñu moytu jegeyante bi te mooy ñu ñu ñu ñu fagaru daal ba nga xam ni fekk feebar bi ni ma ko waxee bu njëkk moo gën a yomb faj feebar bi kon nun li nu man mooy tuub te dellu ci yàlla te jéggalu yàlla te ñaan yàlla te fexee fekk feebar bi fekk fee faj feebar bi nag moom docteur yee koy def mais fekk feebar bi fekk ko ba du ba du waa ba du ba du jàll moom nun population bi noo koy def mooy fekk feebar bi te fegu nag mu gën a yomb faju te mu gën a wóorit faju kon bu fekkente ne yàlla indi na fi balaa bu toll nii te nun nu di ay africain di ñoo xam ne amuñu doole suñu xam-xam bariwul lépp li ñuy fajoo ci tubaab yi lay jóge li nu jàng sax ba mën a faj tubaab yi nu ko jàngal te tubaab yi ñoom feebar bi jaaxal na leen kon nun nan góor góorlu ba jaaxal tubaab yi ci nan lan fege feebar bi ba tasaaroowul ci réew mi an nazafatu min al iman yonent bi sallallahu alayhi wasallam na an nazafatu set min al iman li man laa na euh, laa nazafa la laa iman la ku amul set ku setul amul ngëm yàlla kon nit d'abord même su lii amul woon nit diñu nit ñi dañu war a set dañu war a civiliser di tuuri seen mbelit di sangu di fóot di ki maanaam daal di raxasu saabu di lépp loo xam ne euh, day indi ay microbe ay kii parce que li virus bi du moom rek moo fi kii bari na mais nit ñi ne nekk ci set mën na am yàlla nañu yàlla dimbali suñ ci euh, jógee nit ñi tàmm set loterie nationale sénégalaise ak directeur ba di Amadou Samba Kane dessuñu ginnaaw ci élan de solidarité nationale bi njiitu réew mi ngir dal ministre de la santé Abdoulaye Diouf et ay produits désinfectants ak détergents ci lu tollu ministre de la santé et de l'action sociale rafetlu te di leen ci gouvernement bi yépp ngi euh, gërëm bu baax directeur li mu def tey rafet na si turu président Macky Sall si turu gouvernement bi maa ngi ko si euh, gërëm bu baax di wax ne LONASE moom euh, cërëm mooy toujours nekk si booru population yi jàppale leen bon dëgg bu defee lii du loo xamante ne dañ naan gulet donc déjà ñu ngi lay remercier bu baax di wax ne xeex bi nag euh, du xeex bu yomb parce que booy xeex ak ennemi boo xamante ne gisuloo ko li gën a am solo si xeex bi mooy ñëpp bokk nekk benn te nekk benn boobu am na si acteur boo xamante ne acteur bu essentiel la mooy euh, ñu xamante ne ñoom ñooy tas xabaar yi xabaar yi ñoo yegg ba si population yi di formater seen comportement kon dëkk ñu ngi kontaan si seen taxawaay di leen lancer effectivement message boobu parce que xeex bi ñaar la am na xeex boo xamante ne da ngay bañ mu jóge bitim réew ñëw am na xeex boo xam ne da ngay bañ mu law si biir réew bi ñaari xeex yooyu yëpp nag la ñuy bokk ak yéen pour jéem ko gañe xam ngeen ni euh, ci semaine yëpp ñu ngi ci situation bu bu bu jafe bu doy waar feebar bi am fii ci réew mi heureusement au moins euh, président de la république gis na teel na jël ay dispositions su ngeen gis sax ci télé yi wan nañ même nu ñuy raxasoo ak yooyu yëpp wane nag pour wan ne nag problème bi c'est c'est un problème sérieux boo xam ne ñëpp ci war a bàyyi xel en dehors des dispositions yu ñu war a jël ci cet gi ak ci comportement attitude yu ñu war a am ci suñu comportement de tous les jours il faut que nit ñi mën a contribuer du société yi du société yi rek tous les sénégalais doivent contribuer képp ku mun dara parce que ñun ñëpp ñoo problème bi ñun la c'est pas un problème de l'état du état rek moo war a def ñëpp ci war a jàpp yi société yi ñëpp alors l'onage également moo tax ñu indi tey suñu contribution génn produit yi lu ñu xeeb la pour le moment c'est un début trente millions la à peu près c'est des produits yoo xam ne ministère bi dina ko dina ko soxla pour jëfandikoo pour euh, aar nit ñi pour euh, préserver pour jël déjà les devants pour que maladie bi bañ am fu mu fu mu am tamit ministère am moyen ñu tax mu koy mën a mu leen di mën a dëkku mën a faj nit ñi ñii di waa jàngu bi fii ci Sénégal ardu dinañu woon ñoom ngir fomm seeni àjj ak dàkkal lépp luy mees ci église yi loole nag ngir fagaru ci jàngoro bi di coronavirus lépp luy ndaje ñoom dootuñu ko amal Père Deo Gracia du curé bu paroisse Sainte Joséphine Baketa, Andichi Aileral. Et je suis là pour vous présenter les dispositions de l'Église euh, par rapport à cette euh, situation de maladie qu'il y a dans notre société aujourd'hui. Alors, euh, je commence par le thème pastoral de notre diocèse cette année, c'est Christ vit. Christ qui est la vie et qui donne la vie et qui voudrait qu'on vive la maladie vient contredire cette volonté de vivre. Et c'est pour cela que nous sommes euh, euh, à côté et avec tous ceux qui luttent pour la vie. Et voilà donc que cette maladie qui a commencé il y a quelques mois, qui court dans le monde, nous oblige à prendre des dispositions nécessaires pour justement euh, nous protéger dans la mesure du possible. Les responsables de l'Église nous ont demandé d'abord à changer les habitudes au cours de la messe. Ils nous ont demandé de ne pas communier avec la langue, mais avec les deux mains. C'est plus hygiénique, je peux dire, et ça limite la possibilité de propagation de cette maladie. Et la deuxième chose qu'ils nous ont demandé, c'est de cesser de nous saluer pendant le moment du signe de la paix, pendant la messe. Et voilà donc les deux premières choses que les autorités de l'Église catholique ont demandé à leurs fidèles pour participer et contribuer à l'éloignement de euh, cette maladie. Après, le gouvernement a donné aussi son ton sur la question et nous, avons, nous sommes alignés à, cette mesure, à ces mesures du gouvernement. C'est de pouvoir limiter les rassemblements. là, ça devait toucher nécessairement les célébrations eucharistiques, puisque c'était des occasions de rassembler les fidèles autour du Seigneur. Alors, nous, puisque nous sommes là pour euh, lutter pour la vie et nous engager pour la vie, nous avons écouté cette voix, cet appel du gouvernement de limiter les rassemblements. Et c'est ainsi que les autorités de l'Église catholique ont demandé à ce qu'on cesse les célébrations eucharistiques et les messes et tout ce qui est rassemblement les réunions qui se faisaient au niveau des communautés ecclésiales de base, ou les mouvements d'action catholique qui se rencontraient, tout cela pour le service de la vie, pour éviter que cette maladie puisse continuer à se propager. Le message parle justement de ce désir de pouvoir protéger la vie et avec, en prenant des mesures de tout ce qui peut entraver cette vie, c'est de respecter les consignes qui sont données par les autorités, qu'elles soient civiles ou religieuses, pour pouvoir essayer de, rester eh, loin des foules pour éviter de, contacter la maladie, ou si on en a de ne pas la propager, la, la, donner aux autres. Donc respecter les consignes qui sont données, pour moi c'est ce que je peux conseiller à, aux fidèles et à tout le monde d'ailleurs, pour que nous puissions voir si cette maladie peut s'éloigner à cause de ces mesures que nous, que nous sont proposées, que nous devons respecter scrupuleusement. ñu gën koo xam ci coronavirus di ab jàngoro bu doy waar te bàyyeekoo ci réewu Chine lëmbe àdduna wërngal këpp fii ci réewu senegal nag ayu bés ñu génn lañu nemmeeku suñu kaa bu njëkk ñeel boobule jàngoro mu nekk ab nasaraan bu bàyyeekoo ci réewu France. 56 cas yu ñu testé positif ci Covid 19 waaye juróomi fat nañu leen ba ñu wér ngir dakkal wala sax ba ñu jàngoro ji law ay frontières tëj nañ leen ci diirub benn weer ci ay dëkk yu ci mel ni France. Espagne Belgique Italie Portugal Algérie ak Tunisie di dëkk yo xamantene fièvre bi ma nga fay law ngir bañ jàngoro ji law ba léegi njiitu réew mi Macky Sall tëjandi na école yi ak université ci diirum ñett ayu bés ñu tàmbalee ko lundi 16 mars bi ñu génn ministre bi ñu dénk wàllum biir réew di Aly Ngouille Ndiaye dakkal na bépp rassemblement ak manifestation tàmbalee ko 14 mars ba 14 avril 2020 te xam leen ni bépp ndaje bu ñu fi gis dinañ ko dakkal Amadou Hott di ministre de l'économie du plan et de la coopération di xamle ni amna ji am ay ci secteur yu bëri bu ci tourisme transport aérien échange yu dox ci seen diggante ak yeneeni réew ba ci sax ci mi ba tax lëkkaloo ak ministre de la santé di Abdoulaye Diouf Sarr ngir dakkal bile jàngoro balaa am ci économie réew mi. daanaka ba jàngoro ji tàmbalee ba léegi ku nekkee ngi joxe ay xibaar am na sax ñu ciy wax loo xamante ne dara du ci dëgg ba tax njiitu réew mi Macky Sall ak Abdoulaye Diouf taxaw teemu ne ku ci joxe joxeti xibaar bu wérul yoon dina dal sa kaw ndax dinañu saisir procureur de la République ci ab plainte contre X ngir mucc ci jàngoro ji di Covid 19 na ñuy raxas suñuy loxo fu ñu toll ak ndox ak saabu. wala ñuy jëfandikoo solution hydroalcoolique te bu ñuy sëkkat wala tisoo li ñuy jëfandikoo ay mouchoir te bu ñu ci noppee ñu sànni ko ci ay poubelle wala bu ñu amul mouchoir ñuy sëkkat ci suñu ay creux kuddu nañu respecté yile consigne ngir mën a mucc ci bile jàngoro. ginnaaw bu gouvernement bu Sénégal jëlé ab ndogal ñël si lu jëm ci tëj ay frontière am muy aérien wala terrestre ngir faak ak xeex li di lawu Covid 19 Maguette Ndiaye di économiste te xam-xamam màcc ci walum kom kom di ñu xamal lu mëna ralentir économie dëkk bi. dañuy basé aussi rapport OCDE bi nga xamantene dafa génn le 2 mars 2019 rapport bobu tay boko ko luñ ci wax moy OCDE dafa prévoiroon deux cas de figure c'est-à-dire ben épi benn cas bo xamantane dañuy am ben épidémie circonscrite c'est-à-dire une épidémie qui sera uniquement concentrée au niveau de la Chine Benen bi moy une contagion plus large mais tay buñu gissé situation actuelle monde bi numuy doxé, kon mën nañ wax né euh, scénario 1 bi mën nañ ko tegee nele parce que tay gis nañu ne euh, virus bi ñuy wax bi nga xamante moy Covid 19 tey euh, jàpp na lu ëpp si deux personnes yoo xamante ne tey ñu ngi dox ak feebar boobu wala ñu ngi leen hospitalisé beneen bi mooy feebar bi di Covid 19 aussi reyagum na plus de 9000 personnes donc tey mënatuñu wax kaawu épidémie circonscrite donc ce cas euh, li li am instant bii nii mooy euh, Covid 19 bi. jafe-jafe bi nga xamante ne da koy indi si économie d'abord day nekk d'ordre économique d'ordre économique mooy lan par exemple tay gis nañu ne dëkk yi nga xamante ni yëpp affaire bi dal na leen ba mën leen mesures mesures yi ñu jël na frontières euh, ñi nga bi seeni dox seeni déplacement ñi nga sax seeni ñuy wu di dem bi sax pour ñu toog seen parce que le virus se propage très rapidement donc mesure yooyu noonu noonu tey nga xamante ne euh, nguur yi dëkk yi yëpp jël nañ ko loolu dafay am impact ci économie bi ni mu ciy amee impact mooy tey dem li ñuy wax production bi nga xamante ne dëkk yi loolu la ñuy saytoo dëkk bu nekk nan ngay doxee production bi dafay ralentiru bu ralentiroo loolu lan moo koy indi mooy demande intérieur bi nga xamante ne day am si dëkk bi moo baissé parce que tey nit ñi nga xamante ne ñoo waroon xëy dem di liggéey di daanu seen doole bu ñu toogee seen kër donc production bi nga xamante ne dëkk bi waroon na ko dégager dafay wàcc donc loolu noonu effet bi muy am ci année 2020 bi ñuy dem mooy il faut s'attendre à ce que PIB bi c'est-à-dire pour produit intérieur brut bi dafay baisser donc te loolu c'est un cas qu'on va qu'on va remarquer dans toutes les tous les pays yi nga xamante ne tey crise bi dugg na fa même sax pays yi nga xamante ne crise bi laalu leen carrément parce que tey on est euh, dans la mondialisation pays boo xamante dara dal na rek automatiquement fay affecter yenen pays yi nga xamante tay ño am ay relation donc par rapport ak pays yooyu non benen bi euh dans le cadre financier yaa ngi tay crise économique da fa indi wat benen crise moy crise financier crise financier bi tay nuñ ko meuna sayto ak nuñ ko meuna a nan lay wanewoo mooy. Euh, depuis le 12 bi nga xamante le président américain Donald Trump a na def déclaration marché financier bi dafa dafa crash c'est-à-dire euh, investisseurs yi ils ne sentaient plus en confiance parce que euh, Donald Trump nu mu waxee rassuré wu leen te xam tay buñu wax marché financier donc Wall Street moo tax ñuy wax au niveau des États-Unis ak bien que ne yeneen yi am na yeneen yeneen marché financier am na si mel ni Paris Hong Kong ak yeneen ak yeneen mais Wall Street dafa dafa am poids si marché financier bi donc déclaration boobu noonu mu def moo tax effondrement bourse am te loolu noonu ñu ngi koy sentir léegi ba léegi ba nigi tey bourse bi parce que euh, investisseurs yi politique yi nga xamante ne état yi ba léegi ñu ngi koy dégager rassurer wu len parce que euh, mesure de confinement yi ba léegi ñom li leen doon rassurer mooy ñu ne leen kat euh, trouver nañ un vaccin wala un sérum là donc mën nañ mën nañ envisager que bourse bi di marché normalement donc euh, crise financière boobu noonu li li mu indi noonu léegi fi fi ñu jëm moo moo moo moo jar a tiit c'est-à-dire tey bien que ni état yëpp ñu ngi jël seen i matukaay di wax ne pénurie du am que dinañ mën approvisionner donc dëkk bi de telle sorte que kenn du mais il faut s'attendre à ce que pays bu une ban capacité la pour absorber wala amortir euh, tey kii bi nga xamante ne choc bi nga xamante ne Covid 19 bi dina ko am seen dëkk. nañu gën a wax ak suñu njaboot yi gën a téye aussi suñu doom yi parce que tey bu ñu arrêté jàng xale yi c'est pas que pour ñu dem ci mbedd mi mais dañ leen dañ ko arrêté pour que ñu toog ci kër yi pour mën a euh, euh, maanaam téye seen doom yi sensibiliser leen aussi ci feebar bi nga xamante ne moo fi nekk parce que feebar bi ça se propage très rapidement mën nañu tiit nag.